Euh, jërëjëf mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal jal dellu si ak euh, ko baaxoo defee saa ne ñu daal di ñëw indi leen lu jëm ci wàllu fenugrec ñu ko dee wax ulba rek garab la goo xam ni njariñoo wa ca nekk yaatu lool mën na dimbali ci lu bari ci wàllu jabet ci wàllu tension ak ci wàllu am yaram garab la goo xam ni daanaka rek ci taarix principe actif yi ca nekk bari lool mu am li nga xam ne moo di graine bi mu am lu ne looti poudre bi ne war naa la bu dee graine bi jëlal benn kuddu gu mag nga daal di ko def ci bouteille bi yow soo ko defee nga bàyyi mu fanaan soo xëyee suba soo ndekkee ba noppi nga jël ci kaas bu mag su la neexee nga yokkaat ci ndox soo ko defee ba mu sàppi nga changé defaat mooy graine bi soo ko dee naan dina la dimbali raxas saw deret waaye dina la lekk loo nee naa la su dee poudre bi su dee da nga am diabète wala nga bëgg am yaram su boobaa da ngay jël benn kaas bi ñuy ndékkee nga def ci ndox ndoxu robinet ndoxu Evian walla ndox rek nga def ci lu yam jëm deux cuillères à café nga sotti soo ko sottee nga bàyyi ko benn 10 minutes mu sekki ndax day sekki su sekkee nga jël ko daal di ko naan soo dee diabète dina la dimbali soo amee hypertension dina dimbali. su doon da nga feebaroon ba noppi jeex mën na laa dimbali kon mbokk yi ñaare ngi nii muy fenugrec ñu ko def wax ulba poudre bi su dee da am ay ballonnement su boobaa nag da koy jël asio chaud soo ndekkee ba noppi wala soo añee ba noppi nga jël si demi cuillère def ko ci ndoxu tàng loolee mbokk yi ba si saxoo suñu doon mën nañu la dimbali jàll yi mbokk yi.